sëñ Tuubaa dafa xam ne wala tabaagadu wala taxaasadu bu leen bañante bu leen iñaanante wala tanaasaxu bu leen di xëccoo it ndax alxuraan dafa wax ne yéen ñi gëm yàlla bu leen xëccoo lu tax bu ngeen bañ a xëccoo wala tanaasaxu fa tafshalu wa tadhabu riixakum boo leen xëccoo rek da ngeen échec ba noppi seen force dem kon faaw ñu taqoo xam ne jumaay njéeréem ci ñaar fukk ak juróom-ñett lañ tàmbalee woon mm-hmm. jumaay Touba ñaar fukk ak juróom-ñett lañ daan jaay di boote di jaayante soorool bi bi ko Cheikh Mourou Cheikh Sibou Khadi wax ñaar téeméer lañ doon lañ doon jaayante mm-hmm. tey jii dem nañ ba daayire am boo xam ne nga xam ne opérateur mu murid yi doon ay milliardaire mm-hmm. seen première réunion un milliard lañ génne di ko jaayante la Serigne Touba loola nag murid bu ne war na caa teg mais boo bëggee topp rek Sëñ Tuubaa lu mu bëgg dana am man murid la xéewalu Sëñ Tuubaa amul morom fi ne ba ci màggal gi da nga gis ñoo xam ne mhm. bu ñu màggalee yuuxu ci mbedd mhm. dafa war a am ay teggin mhm. Sëñ Tuubaa dana barke ab néeg la bunt ba mooy teggin ci lu wér defar sa jëmm defar sa jikko ndax loolu la Sëñ Tuubaa bëgg buñ ko deful nag ku ko deful nag yaa caag waaye sëñ moom kenn mënu koy xadar hmm. dëgg la dafa waxoon ne hmm. boo leen boo leen gisee mën naa leen fonk leen sama dëkk bi di Touba fekk dafa wax ku ne wax wax Serigne Baye Sëñ Jaañ doomi sëñ sëñ kër sëñ Mut Jaañ yejjin Jaañ nee dañuy liggéey bi sëñ Touba na dem leen jël ma fi ab daaju hmm. ab pont nee na ñu dem andi ko pont bu ndaw mu ne ab jëlu mbaan laa wax de. lay mag ñoom indil ko ko muy jal jal moom sëñ bi jal ba mu jal mu jël pont bi tekki bës ko ba mu nuur mu ne li ma def sama jalumaan bi laa def sama diine ji kenn mënu ko yàq yàqu ba jël kenn ko yàqal dara ci bokk nag moo war a seet ban façon la te sëñ dafa layoo woon ak nit ñi sëñ Moodu waaw dafa am bis njëriñ mu dajalu wax sëñ Malick Ndiaye no ko yéeneel ma sëñ Malick Ndiaye génn yaakaar yi jaam yi ki di xerte tey ne nan daje ca kaddu jullikaay mm-hmm. ba ñëpp dajee ba ne gorom ñu bàyyi wenn yoon sëñ bi ñëw ba si nga xam ne keroog ngelaw yënguwut jaboot yi boot seen doom yi la mi tàng tàng doom jooyu mu ne asalaamaaleykum ñu tàmbali bëgg a jot asalaamaaleykum yo mu ne déedéet tey du bisu jot sans problème naa pinceeg jaam ñi balaa balaa bi ni ñëw allahu akbar daan na almutaxaaliquuna bi ala arbaati aqsaami ñi aju ci man laa bëgg a leeral ñaata xaaj la daan na ñeent lañ daan na mutaxaaliquun bi maal xibaada wal xidma yadxulu jannata bi xëyri xisaab bi mm-hmm. ki aju ci man mm-hmm. boole liggéey ak jaamu yàlla bu faatoo rek day tàbbi àjjana mm-hmm. ki ne ci man la aju nag ba noppi di liggéey te du yàlla faw moom mbugalum addu daan na ki ne dafa aju ci man te duma ma liggéeyal ngi ci fen wu nëbbu kii ne ci man la aju du ma liggéeyal du jaamu yàlla mi ngi ci fen wu weex tall kenn ku leen xool ci mu bokk ci ñi kon murit bu ورنا خم سنجوا بمنو جانغال دفنا وخني اول واجب على المريد تحصيل زاده من التوحيد لي وارتي مريد بي مو خم خم خم توحيدم خم لي ويرال اي فراتا وايي لاماي وخني خامي جروب نتي فيسبوك نتي واتساب نتي يوتيوب تبون بون لا لاجون نياري فراتاي كور رك الله اكبر تا سنجوا ديغال نكو na xam faratey jëmmam. Mhm. loolu naa leen téere yooyu ba noppi taalif ko. macha allah te jàng léegi yomb na nit dana bañ a xam dara sax di jàng ci internet ba fel ij rawatina loo xam ne téere bu nekk tekki nañ ko ci wolof jàngal ko. nga war koo xam mhm. kon image bi nii murid mel di jaayante. Mhm. di liggéeyal Serigne Touba. fu ñu dem taxawee taxawaay boobu. kenn ku ne ci loolu la war a participer. jaajëf wane ne sëñ Touba lii la bëgg. mooy li ci jiitu mooy ak jub. macha allah tege ci aw yoon. yoonu Serigne Touba. lu mu mayul ña jiitu. Hmm. du ko may kenn mag ñi. wax dëgg yàlla daana bàyyi ba guddi mu woo ci kenn. ana bi nga xëyeeg léegi ñaati baat nga fi wax. laa ilaaha illallah. nga ne ah, man de mbàkk nit nuyu ma ne ko waa kër ga ana njaboot ga. laa ilaaha illallah. mu ne bëriwul de waaye boo la na gën a néew. laa waaye boo léegi gën a néew. Hmm. mas naa toog dégg ku ree ba ba xaqtaay. Hmm. sëñ bi ne dëdd ba yàgg mu ne xanaa saa daa taxaw ban atte ba noppi. laa ilaaha illallah daana googu ree de feeg néew ñoon démb la siraat waree su ko ree ilaha illallah ngir ni muy soññee nit ak ni muy yare nit ñi ak fi mu leen di teg kon ndaw dafa war a xam ne mooy étape bi gën a riche ci ak dundam te dañuy wax ne salaasatun laysa laha iyaabu almaalu wal jamaalu wa shabaab ñett yii aller sans retour alal ab taar ak ak ndaw saa yooyu yeewoo yaa ngi jëm ci ak mag dëgg la kon faw nga profité fexee doon ndawul sëñ Tuubaa te gis nga sëñ Tuubaa mas naa am sëñ am sutu jaxate na ko am sutu ngeen ne ci njaareem li ngeen may jox ak li ngeen may defal bëgguma ci dara njëbbal ak taalibe ak ci dara man sama bëgg ahmadu xajul adduna allah daal nag sama bëgg mooy bu ëllëgee yamal xiyaam bu sama sàng ba ne cëpp muhammadu rasulullah bu ma ko dogalee fàttaliku bay du ma ko waxoon ci àdduna antal karimu annal xadimu dëxëran uluma fii ka ba na ma rammul jaam ñi bu boobaa murid bu nekk sañ koo nangoo ci man rammu jaam ñi tamit dëgg loolu mooy sama bëgg kon ak juba koy maye ak tege ci yoon mm-hmm. ak nangoo jaamu yàlla mm-hmm. te xam fa nga jëmee sa tànk te ubbi sa xol mm-hmm. la nga bëggal sa bopp nga bëggal ko ñëpp ndax loolu lu sëñ Tuubaa digal kon nag loolu sëñ Maodo macha allah la boo xam ne sëñ bi jëm ci ndaw ñi sëñ bi soññee na ko jàngale na ko am na bi ñuy dem gànnaar fukki at ak juróom ci mag mi fukki at ak juróom-ñett lañ am ah bi ñuy wutu sëñ Tuubaa 40 ans la wutu Cheikh Cheikhul Khadim 18 ans yoo xam ne xefu kawam yi wëccul ci xefu suufam bi muy nelawu fi ndax responsabilité bi ko sëñ Tuubaa dénk yooyu la ñu war di attiré di ko jàngat dëgg la mm-hmm. di ko xool mm-hmm. ci pas-pas ak pas ci pas-pas mm-hmm. xam ne lii mooy melaw yi waaye bañ baña baña bañ a xam foo jëmut bañ topp ku jëmut ci aw yoon ndax kii toppee it ki mu war a topp daf ko war a xam dëgg la ndaw ñu bari li leen sànq mooy ñu ni topp lañ xamul dëgg la moom te yoon bi lu sëñ Tuubaa moytoon mag ñe mënoo fexe ba créer waaw du yoonu ay ay rii ay mbooloog ay coowandoog mm-hmm. ay nang de du loolu du loolu si sëñ Abdourahmane Mbacké daal nee na sëñ Tuba afna al xayaata bi ma yurdi ilah wa ma jaa ar rasul bihi mafrudan wa masnuna mm-hmm. fal fal nufliha nahnu fi ma mm-hmm. kaana yurdihu daa fii la si nafsi turdihu yusqina dundam gépp da koo jeexal ci yàlla ak rasulaay noonu nag nan jeexal sunu dund ci li koy gërëm loo moo walis moo gën ñu jeexal sunu dund ci liy gërëmloo suñuy bakkan macha allah ñuy dugg nañ ko xam te sëñ Tuba dafa wax lu man tawajjaha ila arrahmani arrahimi rafaqnaahu wa man tawajjaha ila arrahmani rahim ma sheytaani rajimi faaraxnaahu ku jëm ci yàlla mhm. boole woo ko dara mhm. jërul gestu maa ngi yow a ànd mhm. ku jëm ci yàlla boole ci seytaane tàggu ne allahu akbar loolu day leer na nag yow li yaa ngi ko wax ci ni nga ko bërki démb ci Touba Kane foofu mooy suñu dëkku ci saan macha allah